mbokk yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen siyaare di leen ndokkeel ba tey ñu ngi leen doon wax ci mbirum rab rek ak yi nga xam ne moo ci aju ndax daanaka boo xoolee jafe-jafe yi nit ñi di am yu bëree bëri surtout ci suñ Afrique sowu jant gi mbirum rab la ci bokk loolu nag li fay waral mooy dañoo am rapport bu jige ak ñoom ndax suñu maam yi lu jiitu lislaam def yaatu mi ci ceddo gi dañ daan samp ay xàmm xàmm yi ñu daan samp nag wax naa samp ne boo seetloo am na xàmm yoo xam ne pour lañ koy sampe am ñoo xam ne butéel la sampe xam na sax xëy na ñuy sampe yeneen sama mbokk séeréer si ñoom ñoom la seen xam-xam màcc ci samp ay xàmm yu yu ko nuru bu defee nag yooyu ñu daan samp ki nga xam ne dafa am maamam moo xam ni dafa amoon ak guy wala ak daqaar bu ñu daan dem di fa tuuru nga xam ngeen ni jinne day gudd bu baax a baax léeg-léeg sax mooy tooñ sama mbokk yi wax ne damaa am jinne wala borom jinne yi wala yooyu leen ah ndax yow yaa am jinne wala jinne ji moo la am ndax léeg-léeg gis koo xam ni moom day tiitaroo jinne ji wala mu jàpp ne jinne ji daa am pouvoir wala dafa kii te fekk ni gine nit mo ko gën kawe ndax nit doomu muy doomu aadama ci la yantu sallallahu alaihi wasallam mi ngeen def wacc kon lu nit nit ko gëna kawé kawe wala xatu karam na bani adam bo defé itam bu dé ki nga xamni dafa samp xam ni signé jinne yi pat mo xam day ñaan mo xam ñam waye lu mën xew moy ñu fay tour am na ñoo xam ne dugub ñoree bala ñoo ñam dugub ji dañuy dem tuuru jël ci dugub ji bees ci def ko wala ñebbe ji wala gerte gi doog a ñemee ñam am na ñoo xam ne yegg nañ ci bu ñu rayee gàtt seen kër sax moo xam ngénte wala lu fu mën a xew dinañ ci jël dara def ko ca fañ koy def doog a am droit jëfandiku xam léegi nag loolu jinne rek la jinne ji nag wolof mooy def lu mu xamul tuddi ko ba nga xam ne ni ma ko waxee woon gaynde yeeg bukki yeeg yooyu sax rabi àll lañuy lañ leen di wax baatu rab boobu mooy lu mu xamul rek bu ko defee nag fi ngay sotti soow moom wala nga fay def loolu ngay def ca barab ba muy guy gi wala daqaar bi ci xam nga xam na lu fay nekk léeg-léeg lu mel ni si ndax wala am xulóor walla jaan wala yooyu loola lañ ci rab ñu ni mooy tuur bi mooy rab bi ko defee ñu ni kii rabee ko jàpp waaye yooyu yëpp jinne la rek léeg-léeg nag nga dégg ku koy jéem a séparé ak di ko xàjjale waaye dafay mel ni rek nit ki ak gendarme bi boo ne woon gendarme yi ñu ngi ci barab sàngam taxaw moo ne ay nit dafa taxaw waaye dangaa bëgg mu gën a leer moo tax nga ne gendarme yi bu ko defee ki nga xam ne mission bi muy def wala nga ni sappoor yi wala nangam boo ne jinne yi jinne yëpp nga wax boo nee rab nag dafa am ñoo wax ci jinne yi ñenn explication bi gën a leer ki nga xam ne nag maamam dafa sampoon yooyu moo xam maamam mi jur baayam la wala mi jur yaayam wala sax mu gën a sori mën naa am ba xamutul man maamam la léeg-léeg ngeen nit ki sa rabu kër ndey wala rabu kër baay wala sa rab sàngam mu ne la ñun amuñuy rab fekk xamut fa mu ndax surtout fii Dakar nga xam ni nit ñi dañuy ñëw rek ñaar daje sëy mën naa am sax duñ kiiru kenn kenn ki du xam cosaan yi morom bi loolu doom juddu mën naa bañ a xam ay cosaan ko defee xam ni am na ay àndandoo yoo xam ne ña ci barab sàngam yooyu nag comme ñooy gën a gudd fan nit ñi bu yàggee ba dootu xam fan la cosaanam nekk ko defee nag yooyee bu maam ma fa newoon wala ka fa newoon di ko toppatoo nekkatul am na ñoo xam ne sax mën ñoo jaay kër ga ka ñëw jënd kër kër maasale xam li tasaare ko bu defee jëmm yooyee fa nekkoon nag comme amuñu fuñ nekk te lañ leen daan defal gor la boo xam ni buñ si ñëwoon la ñuy topp ci njaboot bi di leen sonal ak di leen laaj loolu am ñoo xam ci gént la leen di feeñu am ñoo xam ne dañ leen di feeñu ci xarit di wax ak ñoom nga xam ni image lay doon boo xam dañ koy image nañ dañ xam ne am na lu ànd ak ñoom ñi lay wo appel yi léeg nga jot ko xam ne lay wax da ngay xam ni li waxal lu muy gis tay doom wala day jékki-jékki wax ak mom wala mu wan ko lu jege bar na ñoy gis muy tëneeg di sét ak di def ay rab rek li ñi andal waaye jimmi tën yi kese kese kese xam na foo mënu fa ag loolu moo tax ñuy wax ni yoy dafa ram parce que ki yor fukki pétaw ak juroom ben nga xam day japp comme ñuy ram wala fukk ak ñaar muy jàpp burju yi wala yu mel noonu ci nga xam ne ci yooyu lañ koy natt di yëngal bii góor ak jigéen la wala bii aw la xam nga leneen lu laax sa ca ginnaaw nag ki nga xam ni maamam daf caa amoon jum sàppoon te moom topp tootu ko wala kenn topp tootu ko mu yàggee nañu topp njaboot bi ñooñu nag la ñuy gën a solo léeg-léeg nga gis koo xam ne day dem ba nekk ci liggéeyam wala sax mu doon tubaab bu ñuul nga xam ne gëmu fooy ay comme ak Pascal yooyu rek lay gëm mu jékki-jékki indil ko jafe-jafe bu rëy boo xam ne du xam fu koy waxee ñenn ñi wax ñenn ñi itam dañuy xam ni am na luñ àndal am ñoo xam nag dañuy jàpp ni sax baatin la wala pouvoir la te da nga dégg nit ki naa la man dama am rawaan wala dama am lu ma àndal fekk erreur la rek ndax baatin moom du affaire caaxaan il faut nga set wicc nekk itam ci li nga war a nekk bu baax a baax pour nga am baatin bokkul nag di xam xam dara nii wala di gis wala yooyu loolu jotul da baatin dara nit ki mën nay gis di xam luy bëgg xew suba mu xam ko duñ gënt gis ko te fekk ay rab rek moo koy def ndax dañ koy wan waaye nag yooyu ñoom luñ la defal rek am na lu ca war muy lu mel ne ak pay loolu nga xam ne moo ci war nag ñu dële ko laaj boo ko defut mooy war nag ñu dële tëj sa wërsëg wala ñu tëj la am njaboot ñoo xam dañuy sëy bu yàgg duñu am njaboot am ñoo xam ni gis naa koo xam ne dañ koo maye ñoom kuñ maye rek da dem fa ñuy tuuroo nga tuuru doo dem sëy bi léegi nag ji xam naa nit ku sell la ku baax mu ko gëmut daal ndax loolu bokkaale la bu ko def mu bañ koo def waaye moom wax ci làmmiñam ne ma am naa lu ma at di xëpp dara ginnaaw bi ma koy wax itam nee na ma lu ma fukki at maa ngi sëy waaye moom maa fexe ba am njaboot amul doom nga xam ni kon jëkkër ji wur woon a ci ñàkk koo gëm kese waaye dafa war na saak pexe kon bu dee alxuraan la gëm mu jëfandikoo alxuraan joo xam ni rab yi duñ ko mën a yàqal waaye xam nga gëmuma ko kese kese moom dis ci yam dangay bañ a gëm rab bi nga gëm alxuraan nga jëfandikoo ko wala nga dem ci ku la mën a tàqale moom mu tàqale laak ñoom ba duñ la mën a yàqal dina wax tam ni faj rab léegi léeg nit ne la ndax lu ñuy dindi la wala lu ñuy faj la ndax wolof moom baatu dindi rek lay jëfandikoo waaye rab dañuy wax ne da nga koy xupp wala nga xëpp ko wala nga xàpp ko bu dee xëpp ko mooy nga jëfandikoo loo xam ne rek da ko ragal mu bàyyi la taxawee ne saa bu dee loo takk la boo bu loolu dañee wala loo sangoo bu naa ñëwaat bu dee da koy xëpp mooy da ngay xool li mu bëgg nga defal ko ko koy neexal boobaaye bàyyi tam mu bàyyi la jàmm ne ñooy bu dee fàpp ko nag moo gën a jafe muy dindi ko complètement ci nit ki xam ne da nga koy éliminer loolu nag dafay laaj nit ci xam li muy def lu mu doon du am secret boo xam ne ci rab lay dox rek ñun li day faj rab nga ni dama koy dindi te yow xamoo secret bi ban degré lay am lu koy xupp la wala lu koy xàpp wala lu koy xëpp loolu tam lu man xam la mooy li ma doon wax léegi rek bu ci bari daal dañ ko war a teg ci xam-xam bu ko defee nag ñu bari dañuy wax ne mag ñi lañ xamoo nag wala mag ñi fañ tolloon waaye jamono jii ndaw ñu ñoo war a ëpp xam-xam mag ñi loolu nag lu naqaree dégg lay doon ci jamono ji ndax kenn ku ne sama maam lay tiitaroo wala sama bàyyi nangam waaye ñeex naa dégg ndax mag ñi bu njëkkoon moyen amul woon léegi ni ngay mën a ñëwee ci nit mu jox la benn téere nga dem copier ko boobu mag ñi amul woon da ñëw ci kenn liggéeyal ko ay at mu jox la benn secret te da koy bind da nga waaye doo mën a di di ko copier waaye weesu nañ sax léegi yi waaye da ngay toog fii nit toog fa sori nga wax laaj ko ab secret mu foto ko ci whatsapp bi envoyé ko léegi nañ sax di ubbi ay groupe whatsapp yoo xam ne lasaraar lañ ciy waxtaan kon léegi la xam-xam gën a yomb da gis koo xam ni waaye juróom day faatu rek mu ñu daal di gaal yi miraas ko mu am ca ay téere ay sëq secret yoo xam ni borom mus koo nangoo génne wala lu ne la ca moom daf koy mën a jël partage ko ci ay wala mu dugal fa ne kon mag ñi li ñuy li ndaw ñi xam léegi mag ñi xamuñu ko woon waaye mag ñi dañoo gënoon a sàmm mag ñi dañoo sàmm woon ci àll bi lañ daan nekk daawuñ gis awra lu bari daanaka awra jigéen léegi ni nga xam ne bu dee ci Ndakaaru moom foo tur na gis ko gis ko sol lu gàtt wala koo xam ne lim sol kenn xamul lu mu nuru wala sax nga wees foofa yow di ci am looy séq ak ñoom mag ñi loolu ci lañ muccoon ba noppi lañ daan lekk dafa lewoon loolu moo tax bu ñu amee benn secret lu mu néew néew waaye xam-xam moom léegi la gën a yaatu léegi la gëstu gën a yomb kon bu ko defee ñu xam ni li mag ñi xamoon ndaw ñi xam nañ ko nag xamaat lu raw loolu la lu mag ñi xamoon waaye nag sàmm gi rek moo des kon nit ki mu ngi ci jéem te mënu ko wala mu seet ko te gis ko rek na seetaat boppam ci doxalinam ak taxawaayam waaye xam-xam moom léegi la gën a yaatu kon ñuy leen di wax taxawlu foofu wax waaleykum salaam wa rahmatullah